amul form forme bi nekk fi woon euh, tey jii mu daan Gris Bordeaux rek am confiance ci boppam war a mën a jël ki nga xamante mooy booy Niang te Boy Niang la dafa toll ci digg dooleem ana lan nga mën a analyser ci loolu fekkoon na mu jël Boy Niang bu yàgg bi muy bëree ak Gris Bordeaux fekkoon na mu jël Boy Niang bu yàgg jël Eumeu Sène bu yàgg fekkoon na mu jël ko bu yàgg. mais forme am est-ce que est-ce que moom may na ko pour mu bëree ak ki nga xamante ne moo di Boy Niang ndax Boy Niang xale bu ndaw la tey it mi ngi ci forme moom mi ngi ci état. Balla Gaye Gris Bordeaux état bi nu indi neexuma ci mbër déedéet neexuma ci mbër daf ma neexul bëgguma loolu mbër dangaa dama bëgg nga feere feere un bon athlète doit avoir les abdominaux tracés les biceps tracés les triceps tracés le cou les dorsaux les lombaires les cuisses tracés noo xam ne kii mi ngi liggéey est bëgg a jëlatul euh, li nga xamante mooy làmb ji def ko business comme li euh, am na foo xamante ne Tyson foofu la tolloon daan ne làmb ji moom defatu ko li nga xamante ne mooy combat maanaam dootu ko jaral muy dem salle di entraîner ab Balla Gaye mi ñëpp xamoon du la may deux minutes mu song la daan la euh, tey jii nag ñi muy bëree bañ koy kaawoo comme li nga wax sànk rek ñu koy dóor muy encaissé ay dóor est-ce que yaakaaroo ne instant bi nii bu fekkee dafa jël bi làmb ji def ko business war na mën a dem toogi loolu su ko defee dof dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg la su defee loolu jël làmb ji def ko business daal ne dootuma entraîner dootuma ñàkk ci sëriñ dootuma ñàkk ci coach sama entourage dootunu ma wër làmb jaral tuma leneen li léegi damay liggéey di denc ab xaalis laa ciy wut ah loolu de su ko defee moom ma xam ne ab dof dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg la. yow lan nga koy nee nañu ku bëgg a dëkkoo sa ndam ku bëgg a dëkkoo sa jaloore ak sa manoore da ngay fonk sa njàmbaar. ku bëgg a dëkkoo sa ndam ku bëgg a dëkkoo sa manoore da ngay fonk sag njàmbaar njàmbaar ga mooy lan mooy lala ko mayoon ba tax nga dégg daali loola danga nga dëkk mbër du nekk en préparation mbër day pare mbërum làmb jamais warul nekk en préparation mbërum làmb dafay pare dangay ñëw fekk mu pare soo ko ne avance tuuti lay def di finir ndànk day yokk rek di yokk tuuti pour bañ suy dem combat ba yóbbaale yaram wu metti wala ay déchirure musculaire wala dara mais toujours war na ko fee fekk waaw war na ko cee fekk Balla day su defee loolu nag kon ma xam ne nag kon fi mu ne ne maa ngi ci business fi mu ne ab xaalis lay wut ma may dem saal wala dara ah loolu kon Balla ngi xaru ak gune yi nga xam ne ñoo ko dese ku ci nekk bëgg koo toroxal ci làmb bala moo génn booy ñang su sañoon da koy toroxal ëmma seen foofa la koy xaar pour toroxal ndax yëndu na ko xool ko digganteem ak Gris Bordeaux Gris Bordeaux li mu décidé woon du woon bëre ak moom jàpp ko daan ko déedéet dóor ko ba mu wàcc ba tëdd moom la Gris doo décidé woon xanaa kay dafa jël coup lâché dafa jël coup lâché te gëmul ne mën naa daan Balla Gaye mais mënoon naa daan Balla Gaye Gris mën naa daan Balla wallaay mën na koo daan dama ne mu demoon bi mu ko touché ba balla def demi flexion wàcc mu demoon enchaîné lu ko ca fekk fekk ko même su daanoo foofu sax ñu ne oh amoon na ko moom moo gën nii mu daanoo moo gën foofu nii mu daanoo waaw moo Ama Baldé nag xeex bi muy xeex rafet na de moom giri te ci yoon la ko teg yàllaa xam lan mooy am ëllëg mais xeex bu normal lay xeex ay série lay dóor waaw dina dóor arrêt dina dóor remise dina dóor uppercut dina dóor crochet long mhm. da koy ah ah mën na xeex de mën na xeex